aboneel bul fàtte bës notification bi ngir ngay am suñu vidéo alaikum asalaamaaleykum salaamaaleykum mbokki àdduna bi waaye mbokk téléspectateurs yi ñu ngi fi ci Elvision media ah ngeen and ci la france série de Mboro xale bi nga xam ne mo moo yëngal fépp ah les branches du rire fi lay xewé ngir ñak ah ngir reetaan ba seeni ba ñak tu xep ah waye tay dafa nara ala dawme ndax xale bi ma invité fi ci plateau bi tet tet tet waa pap pap pap désolé bala may ñëw ta dara dama leen bëgg a wax benn affaire benn histoire Euh, dama bëgg ngeen dimbale ma ci tuuti dafa sama benn xarit boo xam ne dafa takk soxna ñu dund ñoom ñaar presque ay deux ans yàlla may leen doom yàlla may leen doom bi ñu amee doom ndeysaan euh, jëkkër ji kontaan ci doom ji benn jour ndeysaan jëkkër ji kontaan ji yow benn jour mu ne ji léegi danga fi bàyyi doom ji ñu ànd man a yow dem parc en visité ñoom ñaar ñu ànd dem parc en visité am benn gaynde goo xam ne ni ñu ko dugale woon ci biir case bi moo baaxul yow gaynde gi dafa rek jëkkër ji daw rek bàyyi fa jabar ji yow jëkkër jee daw rek bàyyi fa jabar ji jabar ji am fullaay dox ndànk dem ñibbi jëkkër ji daw ak si biir kër gi dugg fekk fa jabar ji toog ci biir néeg bi mere ko mere jëkkër ji carrément jëkkër ji neexal ko ay faatu parce que lan la baa gaynde gi màttu la ah, wax ma fu mu la màtt ah, daf la gajj wax ma fu mu la gaañ ah, ma dem parc ànd rey gaynde gi wax ma lan la li tax ma daw dama ànd woon sama sago wax ma lan la bébé jabar ji ni këj faaluwul jëkkër ji yow bien ma chérie lan la bul ma mere ah nangam ak nangam ah bébé chérie ah bon amour je t'aime I love you jabar ji jël doom ji boot doom ji wan jëkkër ji ginnaaw jëkkër ji jaaxle xamul lu muy def mu dem ci lexi doom ji neen day nax doom bi <laughs> naa ko ñeme gaynde ñeme gaynde yàgg sa yaay <laughs> ay jëgay am loxo yi juglee yéen ñëpp dama bëgg ngeen di jug waaw waaw jum waaw acca dama bëgg ngeen di jug nag ah di ma seetaan di toog rek amul benn sens amul njariñ dama bëgg ngeen di jug di yëngatu waaye toog di yëngatu di yeggaayu rek baaxul des fois day ànd ak day day day day indi cancer xam nga loolu baaxul boo toogee rek bëgg a fecci ah te jugoo day indi cancer baaxul toogaay bu yàgg da ngay jug di yëngatu ah di ñàkk di tooy xëpp Ah, fii lay xewee fii ci Elvision Média ah l'enfant série de Mboro ayca tey xale bi may invité fii foo bopp le roi su ma ne waaw waaw su ma nee le roi nag xel yëpp dem ci buur waaw buur ah su ma dee le roi xel yëpp dem ci buur waaye le roi roi fan la buur fan la ah le roi ah, dama ko indi fii ma xam ma kii buuru fan la xale bi war na maa wax moom buuru fan la quoi le roi bi ana seexu seexu ñëwal waaw waaw man ngaa fecc c'est que sama ndigil dama ko réparé bu yàggul quoi mais nii la mën ak nii nii la seexu waaw seexu seexu nee na moom mënul fecc quoi moom. <laughs> non c'est que ndigal nii la mën a demee ak nii. nii ah. comme nii. nii nii xanaa ak tëb yi yooyu mais fecc moom mënu ma. ayca Cheikhou maa ngi lay bëgg. waaw maa ngi lay delloo. naka waar. maa ngi nii nice. yaa ngi cool. alhamdulilah yaa ngi relax. maa ngi nii rek di. waaw mbokk yi ngeen ànd fii ak waa Leroy. Cheikhou Leroy mooy xale bi nga xam ne youtubeur la waaye xale bi mooy lëmbaaji youtubeur bi ah youtube toj ko.

terre bi def naa ci ay 17 ans léegi ma jugee terre def naa ministère métallique def naa ko 4 ans ma jugee foofu tamit nekkoon naa chauffeur dawal naa ay 26 ans voilà jugee fa dem nekkaat si beneen kii bi marchand ambulant oh marchand ambulant def naa fa 20 ans waaw waaw voilà ma fa jugee tamit dugaat naa si wàllu kii bi quoi wàllu comédie bi comédie bi léegi def naa si ay su ma juumul 42 ans 40 42 li ma fi wax ñaata la te 20 ans ma mel mouchoir. non. no te taxul wuy ma fii Elvision Média la ñëpp a ngi lay seetaan. waaw Cheikh damaa bëgg lépp looy wax rek nay leer baa muy wóor. non Cheikh nga ni yow métier bi maanaam bi fii nga def YouTube YouTube bi. waaw nga ci ñaata at. parce que booy xool ñi njëkk def comédie Sénégal si laa bokk. nga ni. Pas parce que def naa ce que ce que 38 ans xaw ma yàgg naa si comédie. 30 38 ans parce que métier yi ma jaaree. Seydou ñaar at nga am. man 20 ans. 30 nga def ci 38 ans. c'est que si. non booy taxaw commerce bi ma daal commerce bi laa juumee. xam ngeen booy youtubeur yi. da ngeen a da ngeen a da ngeen sari ah fii fii. da ngaa ñëw ñu waxtaan. xam nga booy mënumaa man mënumaa mënumaa mënumaa gëm ni yow 20 ans nga am ba pare aar bi nga def ci 38 ans. waaw am na fàtte naa la wax am benn gel ma doon laay fal tamit tam trompé ma man ak moom def na 18 ans. ma yokk ko si 20 ans yi man daal ban su ma juumul sama kii dee réer mais bari naa. waaw Seexu Seexu hmm. hmm? le roi. man damay damay toog ñu ne ma yow Seexu euh, foog foog ñu xam le roi bi. Ah, buur bi. Hmm. Ah, buur youtubeur la wala yow booy rek la bëgg a jël teel ah, waaw wala yow kenn du jàll waaw man lu waral loolu lu waral le roi bi Cheikhou le roi. non le roi bi nag boo ko gisee mooy que dañu nekk euh, ñoo xam ne que li ñuy def mhm. euh, par rapport ak yeneen comédiens yi nga xam ne que dañuy forcer genre wala ñu gis ne kii dugg na si euh, comédie bi rek xaaral ma dugg si. Mhm. non ñun comédie dañu nekk loo xam ne que suñuy deret la suñu deret lay daw dañ koy judduwaale mën naa ne parce que suñu famille moom man maa fa nekk di def aar boo xam ne que lii mais boo fa toogoon nii doo ngem mhm. mais nag man maa man la yàlla dogal ma nekk koo xam ne que. maa maa maa gën a fës quoi nit ñi may suivre yooyu noonu mais comédie bi daal lu ma judduwaale la quoi donc duñ demee benn instant nag ma dugg si dem ba benn niveau bi gars yi ni ma. maanaam yow sa euh, la wala sa yaay moo nekkoon comédien wala lan. <laughs> xas nga ma nag. waaw daa sama judduwaale da nga ko judduwaale. da mais. c'est-à-dire loolu nàmp la loolu suñu famille la quoi famille la. ah yow si wàllu dañuy théâtre moom. duñu joué théâtre nii de di génn si ay comme nii nii nii may def. maa dañoo neex. dañoo neex waaw mais neexu neexu neexu kii rek neexu reetaan yi neexu kii. waaw waaw man xam lu ma jaaxal. Seexu dama koy gis ah, ci YouTube bi. Ah. muy teg muy tegaase di génn lu doy waar. Ah. Seexu waaw nekk nit koo xam dafa oyof. ah di yëngal ah Seex ñëpp jàmm Seexu foo gis ci écran day yëngal mais Seexu bu jàkkaaroo bu nekkee ci digg dëkk bi di dox. ah hmm. wala Seexu tey taxaw palaato di wax wala Seexu toog ay moromam Seexu teg lay def ah sa nekkaat beneen nit.

séq nañ ak ñoom euh, loo xamante ay jokkalante wala seexu tey dafa dem ba duggante ñooñu wala seexu tey ji ah lan moo waral euh, connaissance boobu nu yàgg gaa yooyu noonu non euh, c'est que man maa nekk nit boo xam ne que yàlla dafa ma teel a dimbal ci benn côté que mm-hmm. artistes yi ma amal connaissance dafa bari malgré demaguma fenn voilà mais yàlla dafa def ma teel a xamante ak nit yu baax yi xam nga ba ñoom ñu amee seen i yëf et puis tamit ñi may suivre dafa bari macha allah bu dee si YouTube bi wala TikTok. non gis naa ko gis naa ko parce que man li ma gën a jaaxal mooy euh, dama yor ay contact sama téléphone. Mhm. ah WhatsApp bi mais damay gis ay euh, sama waa contact ñu dëkk ba Tivaouane wala ñu dëkk ba Mbour wala ay Thiès wala ay Mboro. Mhm. ah des fois damay vu vu seen statut yi gis ñu statut la def Cheikh Leroy. ah ma ne waa seexu mi ah seexu seexu seexu ah nit ñi bëgg nañ ko ah. Mhm. naa la moo waral euh, nit ñi tey bëgg la topp la ci loolu noonu ah. lan ngeen wan lan ngeen wan. ak seexu ak seexu ni mel nii ah seexu ni mel nii seexu mu ngi nii quoi seexu. ah kii mooy seexu. non non ah, seega loolu man ah, damay gis booy di ko esthétique te man gars di ko esthétique ah seexu loolu waa seexu ah ah. tey nga wax ma seexu tey nu mu def ba xamante booy dëkk yooyu noonu ah te seexu mi ngi toog Dakar bougéwul met non loolu liggéey liggéey bu liggéey bu nice la rek ah sant yàlla aussi ak job bu nice parce que ñun suñu liggéey dañ jox àq gis nga tey ji émission bi ngay def nii boo ko joxulee àq bi si war du dem mais le fait que nga jox ko àq bi te gis naa ne jox nga ko ko hmm. donc di si si kanam tuuti après di nga di nga gis résultat quoi di nga gis résultat donc job bu job bu nice ak euh, gëm lu ñuy def bëgg ko hmm. looloo waral voilà looloo waral nit ñi di ñu contacter fu nekk hmm. man fu nekk laa la wax si Euh, Sénégal ak international fu nekk dañ may contacter. di féliciter encourager. voilà loolu sant yàlla ak job nice quoi. Euh, en fait euh, nice trop hein, nice hein. dina mais Cheikhou damay gis Cheikhou des fois. Cheikhou day changé Cheikhou des mais Cheikhou des fois bopp bi <laughs> hein? mais des fois Cheikhou Mm-hmm. ah ma jékki-jékkaat gisaat seexu changé waat des mu takk ay jaaro fii def ay chaîne bi <laughs> des fois mu waaw la ma waral la mooy waral publication yooyu noonu. non am ci looy nekk wala dafa am ci la la lan la. non loolu c'est kii la quoi maanaam euh, level bu ne maanaam temps bu ne ak lu ñu ci laaj lu muy laaj quoi si artiste. Mm-hmm. parce que artiste souvent waroo di am benn look. dama war a am mm-hmm. look bu ne parce que man parfois ma am vidéo yi ma war a joué euh, semaine boobu wala mois boobu noonu damay def benn style boo xam ne que. vidéo yi may joué nii euh, style boobu noonu vidéo boo ko joué rek après dina dina joxe li nga ci li kii quoi xaw ma ndax xam nga fi ma bëgg a waxee mhm. mais bu dee tent bi la parfois damay toog am envie teinte am envie aussi dem ay tournage série voilà war ci joué role boo xam ne que dafa xaw a bizarre voilà comme rôle géwél wala rôle bongoman comme genre rôle yooyu maa ngi koy intercepté ci ay série yoo xam ne que génnagul loolu la waral yéen mais nag euh, des fois des fois nga gis benn booy jeu ci YouTube bi mhm. def benn affaire bu doy waar benn xale jigéen message ko ni ko nice ah, mu jékki-jékki rek ni ko yow foo dëkk mm. ah? no non non day am day am xam nga xam nga yéen booy xamante xam on se connaît xamante xam nga waxtaan la ah eh, da ngay def benn affaire bi daal benn booy ne la nice ah mm. nga ne ko coucou ah au lieu que booy bi wax la coucou mais day bind nice commentaire rek ah, nga ne ko coucou ah foo dëkk jox ma sa numéro ah léegi booy bi seen numéro nga commencé di doxaan ah <laughs> waaw non commencé man maay seexoo man maa def lii man maa yëngal fii nanga man a commencé présenté wu léegi euh, yow dama laaj ndax yow bokk nga ci boo yooyu noonu. si ah. si si parce que gis nga góor góor la kese. seexu seexu jigéen jigéen la man. <laughs> laaj nga question bu doy des fois nga ko mujjee compter 14 xaw ma nag instant fu mu toll. nga ko mujjee compter 14 la woon. mais bi mooy kii bi quoi mooy troisième. ak bi nga àndal nii man Seyxu dama ko invité mu ñëw couplé lu noonu lu raar mu ñëw couplé indaale booy bi. yaa ngi yaa ngi en direct nag gars yi léegi si daan. non bari leen dama bari leen. non taxaw rek taxaw rek na ay ndam wala dara. mais est-ce que euh, nga ma jox sa turu booy yi sa turu booy yi. am nga fi non jamais. laay la ñooñu dañoo dañoo kii quoi wala waxee rek leen xam. bari na si ñoo xam ne que. am na si am na si ñaar ñoo xam ne que bu ma ko waxoon fii ñëpp Sénégal yëpp xam nañ leen. waaw mais c'est que góor pour man góor góor la quoi jigéen jigéen la. monsieur Ba nga nga ne góor moom parce que bi ma defee statut nii bëgg jigéen non invité nga ku bëgg jigéen ah. non waaw la ah góor góor la. mais nag mais attends attends attends ne taxul nag ma nekk si di foo wala genre bu ma yàq sama ah, liggéey. ah ah booy booy jigéen moom

am nga relation boo xam ne sequ leen ko wala jubboowu leen lan moo indi rapport boobu ak ak tàggal ko boobu noonu. bon njëkk jox moom foofu mu ñëw ci plateau bi. Thiaw waaw. njëkk ci loolu su ma sañoon sax euh, kii boobu débat boobu. non foofu ñu dugg ci débat boobu. waaw mu bañ parce que dafa dafa yaatu dafa dafa kii quoi dafa bari lu si nekk loo xam ne quoi. bëgguma si xuus trop trop parce que tamit bëgguma tooñ. te loolu weesu na ñi ciy wax ak man wax ñan ceeg man bàyyi naa mu sedd moom aussi xaw ma fu mu toll voilà. fàtte na ko fàtte euh, naa ko man fàttewoon naa sax trop comprendre nga donc am na yoo xam ne au début la woon rek. Thiaw Ketchup seexoo ngi nii léegi euh, mu ngi fi Elvision Média dama lay wax yow soxla naa la fii ci plateau bi beneen yoon incha allahu rabi nga ñëw wax ma seexu tey nangu maa leeral. ah mais yow xam naa ne boo ñëwee di nga ma leeralal di nga ma leeralal ay bagages yu. bari non loolu jàmm la woon rek xam nga rek affaire vidéo moom. Euh, ah, parfois ci affaire vidéo ngeen amee problème quoi. day am ay contrat da ngaa dugal moom mu dugal vidéo après ngeen dox daje foofu nit ñi xanaa nit ñi la. <laughs> Cheikh da ngaa doy waar. non da ngaa dégg naa da ngay concurrence ak Thiaw ki jóg. non dañ ma mosoon invité dafa dañ ma mosoon invité quoi ñu laaj ma sama relation ak moom ma am nu ma waxee moom aussi. Euh, dañ bàyyi noonu daal mu gis si boppam mu si boppam. peut-être non parce que na waxee moom moom moom. sama benn copain boo xam ne moom xaritam la temps boobu man xamante ne moom ak Thiaw. Mm-hmm. copain boobu jël vidéo bi euh, envoyé ko ko. moom aussi mu posté Instagram am mu am lu mu kiiwee quoi. am na loo mais loolu bëgguma ñu si xuus daal. am na loolu lu neexu ko daal. bëgguma ñu si xuus parce que après gisante waat nañ. ngeen juboo. no pas juboo sax juboo moom. non njaw kii jox xam naa ko moom bu jàppee mer du bàyyi de. non mais Diaw maa xam man maa bu doole. nga ni non taxul nga ni Ndiaw. Diaw maa la mën maa la ko doole. yow Medina Medina nga dëkk. te man caare laa juddoo caare laa yaroo maa ngi Pikine. maanaam ci li ngeen def yaa ko ci man ci lépp man comédie amul kay wax la fii tey jii tey yéen ñëpp comédie amul ku may taxaw naan kii moom a dàqa comédie. du kenn mais mais xam nga léegi léegi taxawal Cheikhou euh, da ngay dugal YouTube gars yi kontaan gars yi di bëgg léegi Cheikhou naturellement léegi dama bëgg ñu ne seetaan tey jii nga defal ma loo xamante ne tey ñoom dañ ci retaan ba daanu tax waaw man même aussi man xam ma man retaanoo ba yombul ah dama bëgg tey nga retaanloo moom a daanu ak ñeneen seetaan tey nga retaanloo leen est na loolu tey non mën na lu ko raw mais xam nga e rek plateau uh, bu nekk ak lu mu laaj. waaw ñëw lu ñëw même. non non non benn léegi même benn léegi même benn lépp. même léegi léppal moom. lépp waaw. non comme que instant yii période tabaski am na ku ma ci buntu bi. buntu bi xaw ma si yéen lay maanaam comment vous allez mu naan dégguma arab. nga ni koo xam naa ni mu fekkee si yéen lay liggéey ba yow ngeen dàqu ko xam naa ne moom. jëmalewu leen kanam comment vous allez laa ko wax xoolal xamul ne sax comment vous allez. loo waaj yi waaj ñu ko man dégguma arab. te ne te xamul ne te xamul ne comment noo tudd mu naa ma dégg ma dégguma arab. Cheikh man ngaa fecc. waaw. nga jël ñu def ñu def. bu neex nag. non li neex nag. ah ma taxawal ba dégg. Aliou Adama Sow bi Cheikh daa nar a dem Aliou Adama Sow Cheikh daa nar a dem. waaw pare nga ay pare nga yàgg na. pare ngeen na. ko beneen yoon. non Cheikhou patron la quoi nekkul nekkul. ah Cheikhou koo xam ne day Cheikhou nee man man Cheikhou jaay taar la Cheikhou dafa mën a jaay taar parce que Cheikhou des fois sax xam nga xale jigéen di ko message muy fii Cheikhou day yor appliqué ay 5000 message ci WhatsApp am ah.

di leen bëggal si euh, vidéo yi ba pare mm-hmm. euh, temps bi ma war a passé pour bind wala pour genre nekk si leneen pour euh, jëmal job bi kanam pour li ngeen ma bëggee mm-hmm. ñoom tamit ñu bëgg di occuper sa temps si loolu tamit boo toppee rythme boobu après yow day mujj sa temps yëpp si ñoom nga koy passé et kon doo leen dootoo am loo leen bëggalati looloo tax parfois may xaw a yéex a répondre mais man damay tontu message. mais mais taxaw non taxaw parce que ku ñàkk tontu message ne dafa siiw waa xam ne waa diglu ma man gis naa eh, gis naa sa whatsapp sa léegi gis naa sa whatsapp Cheikhou tey ba ma génnoon bi ay 5000 laa gis noonu non ay 5000 5000 ah da lay ah, leer na tey boo doon tontu yëpp di nga toog presque un mois tontu. voilà di doo tontu message. non du non dinaa tontu de la. si yàlla dama laa nga ma tontu. damay tontu waaw waaw nga may tontu léegi gars yi rek gars yi. am ay xale yu jigéen yoo xam ne que. boo leen doon doon dañ la doxaan. non même pas. non man ku bi. c'est que xam na lan la am na ñoo xam ne boo leen tontuwee dañ lay kii quoi maanaam li ñuy wax du am bopp du am genn mhm. ay dama la dama yaa waaw loolu jëru sa wax ay dama la bëgg sa fans la nangam mhm. may la waa merci affaire yooyu noonu xam nga mhm. mais dañuy dañuy bëgg à chaque fois ñu lay répéter mot boobu quoi alors que waaw léegi léegi yéen nag yéen yéen xale jigéen ñi yéen fans Cheikh yi ah Cheikh des fois liggéey bi daf koy xot hmm? day jàpp ba du mën a tontu message yi léegi nag euh, maa ngi leen ñaan ah képp koo xam ne soxla te nga Cheikh ah pour encourager ko lu muy def wala pour féliciter ko ci lu muy def ah léegi de ko jël jënd crédit ah di ko woo. woo téléphone ah di woo Seexu. Seexu foofu noonu. dina ma jël waaw ah, pour la jël. ama dese gi noonu sama xarit bi waaw waaw cum xam nga kii. kii non mooy ama des. fu mu dëkk moom. booy wéy rek la yëpp. waaw waaw léegi. waaw léegi euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax baax waaye léegi Cheikh après su ma jox tey euh, kàddu yi ngay tàggatoo nan ngay tàggu. mais balaa may tàggatoo aussi damay wax euh, que am na ay projets yu may préparé. série projet yi voilà projet yi waaw. voilà benn série bu may préparé série bu mag boo xam ne ko nar na yëngal dëkk bi. nu mu tudd nu après tabaski. non boobu dañ koy dañ koy def kii quoi. waaw doo wax gars yi nu mu tudd après gars yi xaar ko gars yi xam nga xam liggéey bi commencé guñu ko. ñu ngi ci mm-hmm. soog a su ma juumul suba le premier jour bi. Mm-hmm. mais xam nga instant bi tabaski ñëw na affaire yi xoj ñëpp. Mm-hmm. donc après tabaski euh, yow moom. lu may dugg di nga ko xam di nga ko yëg aussi. voilà mais ñi ngi préparé daal lu lu garaaw quoi di wax ne que képp koo xam ne que pare nga pour participer nga woote si numéro bi nekk si euh, affiche casting bi voilà bu fekkee. Euh, présence euh, mu ngi si dinañ la. léegi xam nga des fois def tey at bi lañu soxla ba at bi mhm. ah léegi seen série boobu noonu euh, fan la at yi commencé ah 15 ans la commencé wala 10 ans la commencé ba cinq ans wala. non at yi mi ngi commencé quinze ans ba 30 ans. ba 30 ans. Mhm. yow mi am 14 <laughs> ans nag. non man maa ngi kii man maa ngi di kii affaire yi. <laughs> No, tú eres como Pocotcua. Yo ¿Ah? no, no llevo cara, <laughs> no llevo. <laughs> ¿Ah? No llevo. <laughs> No, no llevo. No, adima amman, adima am normal. Mooy yow ay 34 ans eh, ay 19 ans yooyu laa liggéey mais at yi nga xam ne. waaw léegi seexu ay projet ma ya, mu ngi noonu di waaj ay série yu rëy rëy série yu am solo xanaa man nag di ma ci woo. non yow yaa ngi si biir. yaa ngi si grand frère tam ngi si biir. jeex na aja El Hadj borom El Vision. voilà dafa nekk tamit sama cameraman. dafa am lu ma metti lo, xam ne que bëgg nit ñi. bëgg naa nit ñi xam ko quoi te bëgg naa bëgg naa hélas boobu hmm. fekkee bu may seetaan mu euh, mu ñëw euh, ginnaaw suba mu ñëw parce que suñu kër euh, sonali bi dafa yàqu quoi sonali bi sonali bi léegi sama sama yaay dafa woon électricien bi hélas tasante ak moom ne ko dama bëgg après suba nga ñëw suñu kër nga defaral ma sonali bi sonali bi waa hélas hmm. sama yaay toog toog gisu ko mu woo ko ne ko hélas foo nekk boobu ba léegi dem ba léegi maa ngi lay wow mënu ma jot mu ne ko ñëw naa kër gi soné ba sonn kenn ébli te xamul ne sonali bi xamul ne sa sonalib mooy yàqu léegi dama lay ñaan hélas boo déggee sama message nga ñëw nga defal ñu suñu sonalib sonalib mooy mhm. yàqu boo sonalib saa yi woo na ko te xamul ne sonalib mooy yàqu waa nag waa nag ay seex bi ñooy ñooy nuyu tey jii tey ñu ngi nuyu d'abord yow ak sama grand bi toog ak sama jabar ju ñaaw ji ma àndal moom nu mu tudd Fatima Fatima Fatima moom daa mel day way de Fatima oui. mais Fatima après dama ko soxla fii. dama ko soxla fii yow boo wàccee Fatima day ñëw fi ma xool Fatima. dina ñëw waaw mais maa ngi nuyu fan si yëpp. képp kuy bëgg Cheikhou maa ngi lay nuyu. Eh, am nga benn fan sa bu may gis mu tamit eh, Eva. non fan sa ah. Mboro am naa fa groupe fan bu mag. bu def plus de. plus de deux ans ay waay. bari man li ma jeexal mooy Mboro Mboro man fa laa juddoo yoroo fa màggee fa mais damay gis booy di ko publier seexu seexu. non c'est que ah? am naa fa am naa fa fan si yu bari. gis naa loolu groupe WhatsApp bu mag. kan moo jiite foofu kan moo jiite foofu. Ah, soxna Daba dañ koy wax Yaay Fall. Yaay Fall benn rassemblement nii. Eh, kooku sama xarit la. Ah. oh pop pop pop. voilà kooku moom moo jiite moom moo jiite kooku kooku dig na ma benn iPhone. kooku soxna Daba Yaay Fall. kooku dig na ma benn iPhone ñooy toog chaque jour. est-ce que dama ko njëkk a jox balaa ma koy jox sax. Ah, taxaw rek kooku dig na ma benn iPhone. nee na ah. ma dinaa la yëkkati iPhone. jox moom moom su ko waxee rek dina ko def. da koy def soxna Daba moo jiite groupe di di di euh, waa waa Mboro. Mhm. groupe euh, fans bi nekk Mboro ak bi nekk Gambia bi nga xam ne Kole moo ko jiite. Mhm. ak bi nekk euh, Maroc Aïcha moo ko jiite. Ah, di nekk fii nii nu ñu koy waxee ti Mauritanie ah di kii di gërëm Lalla di gërëm yéen ñëpp sama groupe fans yi yéen ñëpp ak ñi nga xam ne que yàlla def na xamuñu ma mm. dañ may gis ne suñu ma gis xam nga du may seetaan ni si euh, vidéo yi nii maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen wax ne Cheikhou seen Cheikhou la yokk leen ñaani voilà quoi waaw ñëw ñëw ko ca ba ngi ñëw de <laughs> non jow na xoolal yow nekkal sa yoon rek jowar quoi bon continuation

seen xarit seen doom nday yéen ñëpp naa leen woo si émission bi ngeen ñëw participer jàpp si lu gën a xam nga ndax booy gis seen bopp voilà affaire yi nice na li mm-hmm. nga mën a toog génne sa talent génne li nekk si mm-hmm. yow mm-hmm. xam nga waxtaan ni ngi gën a bàyyi xel voilà bu kenn xeeb dara bu kenn euh, xeeb dara ñëw leen yéen ñëpp maa ngi leen si woo man Cheikh Leroy yéen booy ñi may envoyé message whatsapp te liiruma ko maa ngi jégalu ñi woo téléphone jotuñu ma maa ngi jégalu Cheikh man xamal lu ma jaaxal Cheikh man cinq message laa yor whatsapp man damay tontu non yow yow adduna message nga message yow c' est laa ilaha illa non non damay tontu yow sa poro moo ko posté da am nga xam naa yow na yaa gën a siiw gars yi wax nag fii ak deux ans incha allah deux ans sax bëri na. fii ak deux ans da ngay takk soxna. gis ma du yomb quoi. ci yow. xam naa da ngaa nar jamono. non li may li may job duma ne maa fi mën de mais duma moroomu gars yi. da ngaa nar a yëngal àdduna bi. non li may job xajul si kaw gars yi. gars yi ñoo doon waaw loolu moom. kon daal maanaam gars yi fii ak un an wala trois mois sax laa wax trois mois. trois mois sax dafa bari. deux mois. gis ma du yomb. un mois xam léegi un mois fii ak un mois. Cheikh Cheikh taxaw nii sama kanam. man sa sax gis ko du yomb. non yow day yomb. non Cheikh nee na fii moom yaa ko wax de. non El sama kër la. El Vision sama kër la. kon leen gars yi. fii ak un mois Cheikh mi gis ko du bay boo nag ngeen taxaw dem xaar. ah star lay door gaari ay oto Cheikh après boo siiwee même téléphone beeg. <laughs> non man siiw naa ba pare xanaa siiwaat. waaw boo siiwaatee boo gënee siiw siiw merci beaucoup. <laughs> merci beaucoup. jaajëfatee fi lay xewee. waaw waaw. gës gës. waaw waaw. waaw waaw ndeysaan.

di bëggee gars yi baax a baax a baax euh, chaque jour dafa demee su ma defee émission danaa am booy dinaa la yow doomu tudd <laughs> tey tudd naa la sama cameraman tey tuddu naa la waaye tey dama invité benn xale bu doy waar xale boo xam ne way lay def mais en même temps aussi day tourné ci série yeeg yooyu yëpp ah muy Fatima hmm? ana Fatima Fatima gars Fatima eh Fatima ngi nii da nga nuyoo. waaw ah, ñu xooluñu corona. xooluñu. corona eh Fatima Fatima nee na ma eh. ñu xooluñu corona. Eh, eh waaw waaw. cum sama xarit bi. ah, ah dégg naa yaa létt sa bopp. <laughs> non ah ma sama bopp ah <laughs> Fatima. mais Fatima da nga boole lu doy waar boole série yeeg théâtre yéeg yooyu en même temps aussi da ngay way mais am même temps aussi da ngay def lu lu lu doy waar lu ñëpp soxla lu xale jigéen ñëpp soxla muy ay maquillage mm. ah maquillé defar ay make up yooyu noonu ah Fatima fan la jàngee loolu euh, d' abord maa lay nuyu mm. euh, di la remercier ci invi invitation bi mm-hmm. donc maa ngi nuyu téléspectateurs yi ma seetaan mm-hmm. Euh, man maa ngi sama formation coiffure yassine coiffure. Yacine coiffure. wa mm. maa ngi defé yassine Yacine coiffure. ma def mm. un an. Mm-hmm. def sama formation am sama diplôme. tu mm-hmm. vois du coup ngi doon bëgg commencer et tout tu vois. Fatima série. Mm-hmm. Fatima mi série ah, ah Fatima kan mo la dugg ci série ba ngay dugg ci série té té ci damay gis sax nga yaa ci ay série yu doy ah, di di ah. E e no, la forcé ba nga non man forcé wu tu vois lolou dafa nek lo xamné ne neex la. lo yaga mm. je veux dire que naturellement la niveau lolou dama quoi tu vois. du coup man du ma wax sa est-ce que dinaa ko am dinaa ko am laay wax. Hmm, xam nga dama gëm sa bopp dama gëm sama hmm, bopp. Hmm. tu vois man du ma wax est-ce que. tu vois damay ne lu ma bëgg rek dama koy am dama koy am. tu te loolu dama ko yàgg bëgg affaire de série yooyu damay toog di seetaan ay série tu vois. et tout waaw loolu dama ko yàgg bëgg daal. waaw Fatima acca tàggatoo waa sa waa koñ yooyu noonu ah, sa koñ ah, ah, sa koñ. donc maa ngi remercier sama waa koñ bu baax tamit tu vois parce que dañ ma bëggal seen bopp. Mm. et tout ñoom ñoo amuñu problème samay waak sama ay xarit surtout takko takko maa ngi lay nuyu bu baax a baax tu vois du coup maa ngi maa ngi remercier ñëpp maa ngi euh, nuyuwaale sama sama. sama mag sama xarit sama lépp Azou maa ngi koy nuyuwaale du coup au passage. merci Azou ah ayca gars fii lay xewee rek ah. fii lay mhm. xewee ah fii ci El Vision Médias ngeen ànd ci ak ah, xale bi nga xam ne moom moo tukkal jamono. Mhm. ah xale bi nga xam ne mi ngi ñëw. ah l'enfant série de Mboro Fatima ngi nii sama xarit bi Fatima euh, nee na Aïda man way na way bi commencé na ma commencé jooy gis nga sama rongoñ boo doon xool moo tax ma arrêté nag boo doon xool instant bi boo doon xool fii di nga gis sama rongoñ moo tax ma arrêté waaw sama jooy mhm. mais Fatima maa ngi lay bégee lu bëree bëri bëri di la jox jaaj di la jaajëfal lu bëree bëri bëri sama xarit bi cub dama ko topp waaw ndeysaan waaw fii lay xewee fii saa su ne fii ci Elvision media ngeen am ci l'enfant série de Mboro di bëggee waar sama kamera El Elas sama xarit bi ah di bëggee ñëpp ak chéri kookoom ki nga xam ne moom mooy Dieyna ah El Baye Cheikh maa ngi lay bëggee waat lu bari bari waaye saa su ne di bëggee waat waa Mboro ah di leen wax ni yéen laay tiitaroo waaye tamit yéen laay puudaroo saa su ne saa su ma yeewoo rek ah maa ngi sàkku ñaan ci yéen di bëggee waat waa Firi Sop Mbacke Diop sama xarit boobu noonu te lycée Mboro en face lycée bu Mboro borom ah soxna Awa Sindidi maa ngi lay béggee waat bu baax a baax soxna May maa ngi lay béggee ak soxna Diop maa leen di béggee waat lu bare bare dina wax liggéey rek jàpp te bàyyi ah ki ngeen di liggéeyal ku mat a liggéeyal la ku baax la am yéene ci doomu aadama la maa ngi leen di béggee waat bare bare waaye di béggee waat sama xarit boobu ci kër Paate Kan laykan laykan maa lay béggee borom jëm ñaajow sama mécanicien boobu maa ngi lay béggee laykan sama xarit bi borom kër Paate Kan maa lay béggee waat lu bare bare bare di la jox say wàccuwaay di la wax ne ah tay Orange Money bi tey orange money bi vite na ah sama orange money bi dara dara ah. maa ngi leen di béggewaat lu bëree bëri di béggewaat ki nga xam ne moom mooy Baye Mbacke jiite sama xarit boobu foofu ca Mboro ah chéri Adja Mbacke Baye maa ngi leen di béggee bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay lu bëree bëree bëri bëri Baye Mbacke sama xarit maa ngi lay béggee Adja yaa Adja Mbacke ak Lamine mu ndaw jug leen ma may leen soobi tey yéen ànd ak yéen ba beneen yoon incha allah ci beneen émission ngeen ànd ci ak beneen daanaan daanaan daanaan Adja gars yi waaw bébé ki jugal ya aja aboneel bul fàtte bës notification bi ngir ngay am suñu vidéo